Raman ¡Vamos! ñu ngi leen di nuyu, amiin ya rabbal aalamiin sant Serigne Touba ñu ngi jot li nuyoo sëñ Mountakha Mbacké mi nga xam moo fi nekkal seen Touba ak sëñ Sidi Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal seex Abdou Lahad ak njabootu Serigne Abdou Lahad gépp mu ni soxna si fi bàyyi ko léppam sëñ Abdou Lahad ndax nee moom mii day jamonoy sëñ Fallou ànd na ma moom dem Tamba boobu moom mii ganegul adduna boobu suñu du baax a jaxate moo fa nekk ak way juróom moom mii alaaji Touba dem ne loolu yàgg na yàgg suñu blaat lañ kon bu lii amee lii moom mënut a ñàkk ci kenn ndax lu yàlla bind ci doomu aadama la ku dund ku ne ku noyyi ku ne dañ xëy suul la te moom nag ci lu baax la nekkoon ci lañ ko xam ab yar ak teggin ak teggin ñu bokkaloon liggéey ñu bokkaloon liggéey ñëpp loolu lañ ko seere ñëpp loolu lañ ko seere yàlla xam na ko fan yii rek semaine bii nee na man fan yii rek semaine bii maa ngi naan sëriñ bi moom soxna si laa laa ci xamut njabootu sëñ tubaat ndax Ndakaaru la féete woon nee na bëgg naa ba fi dikkaatee ma gis ko ndax day day yaru te kon nag booba ndekete li la yàlla dogal kon nak nan ñaan ci barkeb Cheikh Abdou Lahad barkeb rasul mom mi nga xam ay wajurum mom lañ topol yaakar ko kon yàlla ko yàlla kon yalla yalla ko xare àjjana ñu ko yàlla ko si teeru teral ko barkeb Sëñ lu baax rek a fi ne. lu baax la te lu baax la fi nekkee woon. jàpp naa ne Youssou Ndour mi nga xam ne moom télé bi. jàpp naa ne Youssou Ndour mi nga xam moo moom télé bi. dañ fas yéene gëm yàlla. yéen tamit santaane nañ ci fas yéene nekk. li nga xam ni. mooy alxuraan karim. mooy alxuraan karim. yàlla wàcce suñ kaw. yàlla wàcce suñ kaw. mu julli yëpp. nañ ko fas yéene topp. nañ ko fas yéene topp. ndax bis bii. ndax bis bii. képp ku judd. képp ku judd. ba nga juddoo kanam nga jëm waaye dootoo jëm gannaaw bis bii ñëpp a koy am ndax boo xëyee taxaw mbaa nga lekk fii la ngay mujj lillahi wa inna ilayhi raji'un niko kilifa ji waxe legi ñun ñepp ci yalla lañu ñu bàyyeekoo waaye ñun ñepp ci yalla la dellu bu nek tiis bu melni bu wacce sa kaw kaddu gogu rek nga wara ñëk njëkk ci salam yalla dogal ki nga xamanteni mom lañu la suñu borom legi di fatu kim ne dem ñu bokkon bërëb ba nga xamanteni fa lañuy touré suñu ñaq di fa sakko suñu wërsëg muy groupe futur media yalla dogal président Youssou Ndour jité ko mhm. waye tay rakam mu ngi ni tok di suñu kilifa fofu itam sa bërëb ba di Boubacar Ndour kon kaddu yu ñuy yëkëti si ndigalam lañ koy défé ndax boobaak légui bi xibaar bi wàccee ba légui ku top télé bi ak programme bi xam lepp fa tabarakallah ma sha allah ñu ko jagleel soxna Fatou Kiné dem té loolu liko ko may moy yi ñuy bëgg wax di ay qualité ay jikko yoo xamante ni moom lañu gis si moom naw ko muy baax muy yaatu muy bëgg nit muy fonk liggéeyam waaye itam muy ñeme dëggam képp koo xamante ni yàlla dogal na nga bokk ak Fatou Kiné Deme fa ñuy tuure suñu ñàq kàddu yi ma wax ak jikko yooyu man nga ko ko seedeel te démb ba tey fa tabarakallahu ñu ngi ko koy seedeel ci li nga xamante ni moom mooy si li ñuy yëngu muy si wàllu média bi mm-hmm. waaye dëmb nag lañu gën a xam dëgg-dëgg nag

இருந்தாங்க Raman